di may seen revue de presse. yéen ak El Hadji Ahmed Aidara. nawetu ren bii neexul de termine yéene kay ne nawet wi la kay ah musiba mbaaba ku may ba léegi ne kon mi ngi continuer le pays au quotidien maanaam ñi nga xam ne kon dañ leen di rey di leen agressé ñuy ñàkk seenu bakkan wàllu inondation yi ak yeneen ak yeneen sax asamaan si kay daanaka moo wàcc kon suñu kaw direct info ne xoolal ma la nga xam ne kon moo am ca Ouest Foire ke Ibra Diop waaw magam ja daam Diop la jëm paaka mu de inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ah maa la ko wax man ne rakk ja ca jalla teg paaka ba waaje kon jaare fa ñàkk ba kanam allahu akbar te moo ni nag ab histoire bu ndaw moo leen boole mag ja daal moo ne ko boo may nuyooti nuyu ma agressé bonjour les dégâts rakk ja daal di kon dem ca waañ wax rocc kon ab paakaam daal di dikk faat kii daam jóob allahu akbar le populaire ne démb li faatu bari waaw waaw daam jóob a ngi nii faat nañu ko ca diwaanu mbaaw gee benn camion kon rey na fa benn waajoo xam ne da doon dawal scooter ak benn xale boo xam ne ñaari at lay tollool ca maatam gee jaay doomu aadama tribune yéen kaay ne ñaari xale kon lap nañu ca urosog yi le pays au quotidien ne wàllub inondation yoo jee mooy indi ñàkkub kaaraange ca banlieue bee le commissaire divisionnaire Alioune Ndiaye bu police nationale ci tribune yéen kaay ne xanaa xamoo leen ne agresseurs yi ñoo nit ñee dëkk seeni dëkkandoo lañ ñoo dëkk waaw waaw réew mi quotidien ne maa lay expliqué tey lan moo sabab nag ñàkkub kaaraange gi nga xam ne moom la ñu nimiku ci diwaanu Ndakaaru gi xanaa xamoo ay gangster kuréel yoo xam ni kon daa njaboote ay wuyu di ay bande yu mag yu foor yoo xam ni wuyu yooyu bokk nañ ci junni ak juróom ñeent ci ay doomu aadama yoo xam ne kaso lañ nekkoon bokkoon ci ñee Abdoulaye Wade kon gracier daal di leen kon baal te jamono joojee ñuy waxtaanee wàllum agression yi ak bakkan yi nga xam ne ñu ngi rot inondation yaa ngi rotal ay bakkan rek di rey tribune yéene kaay ne ginnaaw taw yu foor yi nga xam ni kon moom la ñu numi koon fii li nga xam ne ñoom ñoo dëkk ca ndox moo mais luy njiit ñooy njàq ñoo tooñ seen bopp ñoo dem dëkk kon ca tund woo xam ne kon day inondé allahu akbar kàdduy Abdoul Mbaye yoo yaaye naqari nañ kon forum civil lool Birahim Seck bu forum civil ne xam nga as mbir bu tolloo fii ah. Abdoul mbay waroon naa yëkkati kon beneen kàddu beneen discours wu gën a responsable gën a mat sëkk waaye itam waroon na doon ay kàdduy premier ministre boo xam ne am na njàqare tiis ci jafe-jafe yi nga xam ne kon moom la askan wi di dund waaye lii Abdoul Mbaye def du ay kàdduy kilifa c'est irresponsable ci Abdoul Mbaye mi la nga xam ne mi ngi jëm kon apparemment tuuma ñi nga xam ne ñoom ñoo loroon ci inondation yi naan leen luy njik ñoom ñooy njaag ndax ñoom ñoo fa dem dëkk man Birahim Seck la ma koy xamal mooy état continuité la la woon da koy continuer dégg président de la république bu ñu ko falee ngir mu kon ay bëgg-bëggu askan wi la te gi li mu war a sëgg def ko farata xeex ci dëgg mooy jàppale kon askan xam ne ñoo yeewoo ca ginnaaw raay gee ak ca Dalifort ca Bagdad Gunaas ca Waxinaan Jaay ak yeneen tund sax kon ci biir réew ma loolu moo gën ñu nekk fi kon di def ay mbirum amateur affaire u cuune dégg nga ñoom ñoo ñu ànd sax day waa Bennoo Bokk Yaakaar goo gee ayaa <laughs> ah, bi mbang le populaire ne ñoom kay ñu ngi defante seen biir bu baax a baax waa Bennoo Bokk Yaakaar waaw waaw parce que Abdoulaye Wilane ba parti socialiste daa yëkkati kon ay kàddu xam leen ne LD ba professeur Abdoulaye Bathily ak AFP bu Moustapha Niass ñoom daal fi mu ay poste sénateur te moo ñoom ñoo tas lii di wàllum Sénat bi la kàddu yi Abdoulaye Wilane yoo jee neexul kon ñu ànd ak professeur Abdoulaye Bathily di jàllar bis ya Moussa Sarr nga xam ne kon moo yor kàddu LD ga ne la Wilane laay waxal man na ma wax te firndeel ma fan la akañ la waa LD di jéem a négocier kon ay poste sénateur Ibrahima Ndiaye APR ci populaire ne Khalifa Sall ci boppam nag li mu war a def mooy wane boppam bàyyi laqatu bi daal ah ci naka yéene kaay gi ne Khalifa Sall moo mais la ñuy tuumaal moo nekk kon ci ginnaaw Bamba Fall mii laas ne bu dépendroon kese kese kese kese ci front du refus et de la citoyenneté Sénat bi dañu ko fii dindi ah directeur info ne Macky Sall kay tey jii lay jàkkaarloo ak defante bu njëkk boo xam ni kon askan wi danañ ko ko wàccal kon ci mbedd mi wane seenu naqar ci Sénat bi nga xam ni kon da ko fee bëgg a te ndaje moomee danañu ko amal kon ci màkkaanu rado gee te ñoom alluntin yéene kaay waaye li ci doy waar dëgg mooy Sénat boobee ñi nga xam ne ñoo ko doon xeex naan nañ ko fi jëlee waaw Sénat ñëpp a taaral kenn waxul Moustapha Niasso Abdoulaye Bathily yoo Amath Dansokho yoo Mamadou Lamine Diallo yoo waa M23 yoo société civile yoo te tey booy xool ñoom ñi ñëpp ñu ngi kon ci ginnaaw Macky Sall laas ne FRC ñoom daal amul lu ñu yekkul kon Sénat bi le ba noppi nag sàkku ci Macky sàll bii mu jëlee fi Sénat bi ci nii ak ci nee sans condition waaw waaw parce que Macky Sall kon bokkoon na ci ay diggéem waaye tamit assises nationales yi benn yoon kon Sénat bi le seen jamono ji nga xam ni kon la ñu nekk xel xalaatul sa kon ñu ko fi teg yow ci jamono joo xam ni kon koom-koom gaa ngi nii maara day taali ñu naan ay mbirum sénat inondation yaa ngi nii la di bëgg a rey kon nit ña kurang bi ko fe subaa ngoon gu dég bëccëg di xuy xuy xamaj xamaj kon dellu seeti na ci jamono joo xam ne sénégalais yaa ngi dund kon ab toroxtaange goo xam ne ah booy xool ba ci bi sax saaga kon askan wi la déet waaye Omar loo ne ah kay yow sénat boo xam ne yow ñëpp a koo xas adduna kenn d'accordu ca le sénat est inutile amul politique yii bëgg fu ñu dugal kese amul benn njariñ xërëmu Abdoulaye Wade bee amul benn njariñ le populaire ne monument de la renaissance africaine kat lajji teew Abdoulaye Wade la ñaari at ginnaaw kon ba ñu ko tijjee xërëm goo gee indeetul ay nit de ñaar fukki milliards ak juróom benn kon def nañ ko ca përëm ba ñaari millions jàpp ñaari million ak genn wàll lay dugal weer wu ne laas mboot ya nga xam ne nag moo làqatu ca ginnaaw la ñu tënk diggante nguurug Sénégal gii ak Millicom waa tigoo dellu ci tolloog juróom fukk ci ay milliards la ñu génnee moo taxit ña nga ca seeni bégee libération yéene kay ne ñu nekk ci sibéer yi kon di def ay giraawaal yi di sàcc ay compte jàmbur ak ay xaalisu jàmbur waaw am na ci ay élèves yoo xam ne dañ leen caa tàggat teg nañ leen loxo le soleil yéene kay ne demu ma kereen ñaari fan ci yoru la le vol bu njëkk bi di dem de direct info ne mbaato njaay ah, moom de ay saaga nday yoo xam ne laa lay wax nii la xëyee keroog seen waa koñ maar dey taali maar taali te la sabab lu nu mel kat mooy mbaato njaay daal mbindaanam yor benn mbuus def ca mbali ba koo teg ca buntu immeuble buntu kër ga gardien bi ne ko fii du tegukaayu mbalit min naan ma yëg ca kaw wax ko mbaaco njaay mbaaco njaay fecc kat laa wax de daal di wàccee immeuble am ba ñëw ca suuf fekk fa vigile ba gardien ba joor koy saaga ndey ba a day taali mbaaco njaay yemu ca dem wuti daal ab policier indi ngir policier ba roñal ko gardien ba jëlee ko fa yóbbu ko <laughs> maa la wax li mbaaco njaay ne waa ji ko doon harcelé eh waay samba yéene kaay gi ne mbaaco njaay mii ndekete la muy dëbb li njaa ca suuf ak di ko manœuvrer moo gën a foor la muy ñaareelu ndaje promoteur ya ñoom day nee nañu nangootuñ ne CNG bi kon moo leen di jiite i maa la wax li kuréel gi ci suñu làmb ne dañu ne ñin reconnaître ñu léegi CNG bi docteur Alioune Sarr ak gàngooram yëpp nañ dem parce que fii la ñu nekk fukki at ak juróom-ñett di dictature di buur di bum di bumi ñin promoteurs yi nag léegi CNG bi moo ñu dul jiitee ci pour wax ji leer nga ni maa la wax lii te benn combat nag duñ ko fi taxawal fii ba jëmi jamono nag lañ wax jusqu'à nouvel ordre i la ilaha illallah <laughs> mais alaaji bu combat amul day lamb du am te bu boobaa dootoo leen dégg dem naa ca lamb ja xanaa ñu dëkke rek alaaji tëjal alaaji tijil alaaji tëjal alaaji tijil